waaw xam nga tabaski bi moom ñëw na waaw ah, tabaski moom bu ñëwee nit ñi dañuy bëgg wàllu bayra njaay nga xam ne ne loo yor rek du taxaw tabaski ñëw na léegi nag loolu nag li nga xam ne ne lépp loo jaay rek du taxaw ma jox leen secret bi nga xam ne ne si wàllu tabaski bi képp koo xam ne dangay jaay mbëgg loo jaay nit ñi saxatoo ko jënd ko benn baat ñu koy wax jaamihu mooy mbooloo jaamixu ngay bind cent quatorze muy téeméer ak fukk ak ñeent nga bind baatu waaw waaw waaw waaw cent quatorze boo nag nga def ko téere takk ko ci place bi muy wëndeelu nii bu fekkee yow da wër di jaay nga takk ko sa loxo mu yolom boo mënee bind nag vidéo de ve di ko rayo pour ku wax ak yow rek wax ji day neex lool macha allah kon bayra tabaski ngoog ñi nga xam ne ñooy waajtaay waajal tabaski bi incha allah